ab xikmaam te jiitaloon laytaay tuuti ci e, ak dikkam ci Serigne Touba ñu koy wax sëriñ Abdoulahi Diané Serigne Abdoulahi jaane ku amoon wax yu am njariñ la waaye mag ñi àndoon ak Serigne Touba ñoom ñëpp noonu lañ mel dañoo feesoon del ak njariñ Serigne Abdoulahi jaane daana wax ne jëf jofi nee jëf day jofi rek ca boroom gaynde du ko fàdd fetal du ko jam te bu jofee ca borom de eh, dana bég lool ba xuuyu fil xayri wala mu am lu ko naqari lool ba yuuxu fi charri loolu nag alquran la alquran moo ne fa man yaxmal misqaala darratin xayran yara wa man yaxmal misqaala darratin charran yara lépp lu waay def lu mu tuuti tuuti ci aw yiwu dana dana ko gis dana ci jot waaye lépp lu waaye def lum tuuti tuuti tamit ci ab safaanit dana ko gis jëf moom kenn mënu koo téye àgg ci borom dara mënu ko fàdd dara mënu ko yàq yàgg yàgg dana jofi ci boroom moo tax mën a jëf jofi sëriñ Abdoulahi Diané it daana wax ne sëriñ Tuubaa nee na lu waay mën a àndal ñëw fi man mën naa koo booleek loola defar ba mu des bëgg àdduna bëgg àdduna nag sëriñ bi da cee soññee ba tàyyi ngir ñu wattandiku ko ndax ku bëgg àgg ci sëriñ Tuubaa de wala nga bëgg am ci moom dara danga teg àdduna ci sa gannaaw doo ko jiital am na naar bu naaru murtani bu bari woon xam-xam doon taalibe sëriñ Tuubaa ñu koy wax Cheikh Ahmad Wuld Hasan am na téere bu mu bind tuddee ko Fathu Samiil Alim min kushufaati Cheikh al Xadim daf caa bindaale ne Sëriñ Tuubaa nee na ko moom Cheikh Ahmad Cheikh Ahmad Wuld na Sëriñ Tuubaa nee na ko man de àdduna dama doon dàq dama dàq may daw mu dama dàq may daw ba mujj sama borom ne ma taxawal nag nee na bi ma taxawee daal di wërale aw ab ñag ci man nee na daal di rëdd aw rëdd wu wër daal tomb ci digg ba daal ne man ma ne fii nee na aduna nag bi ñu dawee ba agsi ci ñag bi mu daal di taxaw mënatul agsi ci man ndax suñu borom wërale na ma ab ñag mu ne képp ku bëgg agsi ci man nag danga bëtt ñag boobu ak doog a agsi ci man te mooy da nga weesu aduna loolu sëñ Tuubaa daana ko wax sëriñ Abdoulaye Diané yi daana wax ne na ngeen wattu bëgg aduna bëgg àdduna baaxul lu jara moyu la ndax day tax nga yóbbu sa bopp foo waru foo waragul a àgg wala nga delloo sa bopp foo war a weesu sëñ Mod Lamin Gay Firdawsi am na bis sëriñ Tuubaa woo ko ndaje moo xam ne nii moo ko sëriñ Mor Xadisi ak sëriñ Malik Basin la ci woowandoo ñoom ñett jox leen ay taraanga bañ ca noppee dafa wax sëñ Mod Lamin Gay Firdawsi ne ko gone yooyu yi kat ñu baax lañ boo demee nga dénk leen bañ demee ñu daal dem kër Sëriñ Modou Lamine Gueye Firdaws ne ko ñun kat Sëriñ Tuubaa noon nañu nga dénk ñu mu ne ah yéen lu ma leen di dénk yéen li sëñ bi wax ci yéen waxu ko ci man de nee nañu baax ngeen ñu ne ko waaw waaye loolu du ñu tàqale gis nga mag ñi ni ñu woyofee woon kenn ku nekk da jàpp ne la sëñ Tuubaa di joxe da koo jël bàyyi ko ñoom ñëpp noonu lañ meloon moo ne leen ah leen rek laa leen dénk de muy ngeen wattandiku bëgg àdduna ndax bëgg àdduna de ndaw lu ne la ko naqari ci boppam bëgg àdduna moo ko ko teg kon euh, foofii la mag ñi nekkoon ci ay xikma ak wax wax yu am njariñ yoo xam ne ku ci topp ku nekk doo réer kon ñoo ngi jaajëfalaat mbokki jullit yépp di leen soññaat ci liggéeyub daara Hikmatul Yawmi lépp nag jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir te yàlla rekk tax gannaaw buñ ci amee ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha sallallahu wa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 in uridu illa al islaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu